jàppale ma. dooleel ma commissaire bi jàpp ci waxtu bi jàpp ci. seen oto day gaare. Mm-hmm. sécurité bu doy. bu mm-hmm. defee ñoom El Hadj Malick Gàkk mën a ñëw. Ah, ah, xam nga loolu ñoom ñëppay ñëw. ñëppay ñëw président ñëw saree na mi ñëwoon na ci. Ah, bu njëkk bu njëkk ba may doog a tëgg rabe. Marina wax baax boobu da boobu demagul télé. Eh. boobu boobu tàmbaleegul liggéey. boobu da doon door boobu da doon baal si ànd xaritam bu baax. sama jigéen mu yàgg maa jàpp est-ce que mën nañoo xaaraat ci yow maanaam soirée yi nga xam ne doon am chaque semaine. xam nga parce que gars yi dañ lay namm te gis nañ fan yi amoon na benn stand-by boo xam ne nii. Mm-hmm. tey ñi doon baal si ci yow. Mm-hmm. ma lay xamal si rek. Mm-hmm. dañuy comme que dañoo dem la tournée ñëw. dañuy def naa concert may ko sama waa koñ. macha allah. très bi ma ñibbisee. may ko sama fi nga nax ni da ngay am base. ma def ko géejawaay bayal dooraaw. defal ko may ko waa jàppoo sàmm mm. mu doy war trop soirée bi nañu teg muy le huit bii di ñëw le huit mm. février ravin ñu ci waat ni lépp di ngeen xam ne daal tous les lundi. ñun ñu ngi tropique. fan si bi ma maa ngi ko doon doxal. waaw mu nice gars na moon. mercredi gaynde waaw lundi ah, tropique. te ñu ngi waaj a dem nag five sax ñu ngi fay waaj a dem fan yii. tubaarikàlla bu lëwi bi passé. Habib Habib xam naa ne instant bi comme moom kenn jëlagu ko. Mm. xam naa ak ni mu la jegee nii. non ku baax. di nga ko jël da laa bëgg a jël. Ah. dina nangu. ba xam dina accepté fekkee dina nangu rek

ci kaw bàyyi yow saay ci kaw su ma bikini yóbbu la aw saay nga ma sukk ne oh, ci kaw ba yow saay ko ci pegg ci kaw londul ma bikini yóbbu la outside ma sukk ne oh la garde Ibou non maa la yow lañ nopp dama lay bàyyi ak moom. kii eh? kii ah, ah bon non moom xam na li mu bëgg mooy lu lu lu. waaw ah, tey da nga ah, léegi moom nga bëgg. man damay dem bàyyi la ak moom man maa ngi wuti café gu ma naan. yow gëmoo dara demal ak. i non Thiat maa ngi ñëw ci yow. yow <laughs> demal ci man kii laa ndeysaan léegi man li ma bëgg xam li ma bëgg xam xalifa dafa nice dafa original vraiment Thiat xam na li may wax voilà dafa rafet léegi idée bi c'est quoi lan la. Mhm. xam nga mbëggeel bi woyee nañ ko anam bu ne. gars yi dugg nañ ci néeg yi. Mhm. defee nañ ko anam bu ne. Mhm. mais man dama ko defee anamu sutura. ba pare ñetti góor ñi ngeen a gis nii. kenn ki la mooy sama copain moom laa bëgganteel moom ma war a takk. ñaar ñu teg ci seen bët xam nga léegi da ngay gis ku ku présenté sa xarit. sa gel mu suufu la. Mm. wala mu teg ci sa bët. léegi nag ngay gis sax kuy suufu jabar jaam. Mm-hmm. mooy idée bii nag moo tax euh, moo ma woo wane ci rek.